ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gaam Piro Valda Valda Afrique ak Piro Valda ñoo leen di may seen émission rétro sport. asalaamaaleykum sunu mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ak yéen ci rétro sport rétro sport tey bi nag dañ ko yaatal bu baax a baax a baax ñëw ci réunion comité exécutif bu CAF bi ak tamit décision yi nga xam ni génn na fa bu ñu jógee ci loolu tamit dañuy waxtaan ci Ligue 1 bi ci Ligue bi ak ci national bi. ak tamit ci basket bi ak compétition yi nga xam ni reprendre na ak éventuellement lamb ji nga xam ni dafa war a retrouver public bi ak yeneen discipline yëpp puisque ministre des sports def na déclaration bu jëm ci loolu ni léegi à partir de maintenant à partir du 19 mën nañu def compétition yi avec du public léegi nag dinañu seet ci yan condition lañ koy defee. suñu invité tey nag mooy Salif Diallo bu APS muy koo xam ni tamit li ñuy waxtaan am nañu ràññee bu baax ndax bu ñu mujjee toog waxtaan ak moom fii c'était avant. arrangement bi nga xam ne am na arrangement laa koy tuddee parce que c'est une élection arrangée au niveau de la confédération africaine de football parce que bu ñu mujjee toog fii il était question de la candidature de Augustin Senghor que tous les Sénégalais devaient soutenir mais finalement il y a un compromis boo xam ne dañu waxtaan seen biir ba am lu ñu teg loolu nag les secrets sont des problèmes internes loolu ñu ci waxtaan ak Salif defe naa El Hadj Malick loolu mooy waxtaan tey a di suñu eh, di. di xarit. waaw jiituñu ci affaire bi tentu ni ci lu bëree bëree bëree bare mm-hmm. Mm-hmm. ñu am une relation assez particulière mm-hmm. ak moom ah, ñu war a waxtaan ak moom ci loolu. nañ jox tam téléphone ak Aliou Goloko bi nga xam ne. Mhm. moo nekkoon porte parole lu candidat Maître Augustin Senghor. il mm, est euh, euh, au cœur de l'événement au cœur de l'événement <laughs> alors a yoo xam ne am na. Mhm. man dama bëgg préférer ñu commencer par revue du bi ubbi public bi. Mhm. parce que pour faire proximité même sa Augustin bële am na. alors Salif Keroog ministre def na conférence de presse Matar Ba wax ne dana def arrêté pour public bi mën a dellusiwaat ci compétition sportive yi. naka ngay jàngatee décision boobu bi jël. d'abord dama lay nuyu di nuyu nuyu suñu doyen bi. Mhm. di nuyu auditeur Sud FM nii oui bon en fait euh, ça que euh, public sportif bi dirigeant sportif yi déjà dañu fees seen responsabilité. parce que dañ bon par exemple football basket ak je pense course hippique. Mhm. moom sa va commencer à huis clos mais bon seet na ne yàlla dimbali nañu. mais mhm. amul cas. de plus. par rapport à ces disciplines là. boo demee football man daw ma daw ma basket ba léegi franchement daw ma ko yi dañ doon respecté bi première journée bi sax dama dajoon ak médecin Ngor. foofu moom tam dafa ñëwoon xool affaire bi nu mu demee franchement les gens ont été responsables gars yi vraiment fees nañu seen seen place. Mhm. def nañ ko lu mu ko waree donc c'est normal aujourd'hui am nañu vaccin. même su doon am na benn vaccin boo xam ne day am problème dafa am problème mais bon effectivement yàlla dimbali nañu taux bi muy wàññeeku bon mun nañ xalaat ne public bu ñëw au fur et maintenant. Mhm. sas la aussi encore. sas mhm. la responsabilité la. Mhm. ku la permettre nga dugg stade public bu ñëw vraiment charte ñu teg mhm. nañ ko mën respecter. Mhm. donc loolu loolu loolu moo am am na bëriwul dëkk yi nag actuellement ñoo xam ne dañuy fubal ak public bëriwul nag. Mhm. mais bon je pense que responsabilité la dañ gën a sas. le monde du sport on n'a qu'à remplir notre mission. notre mission de responsabilité pour que feebar bi bañ a law. xam nga dafa wax sax ne dañuy def arrêté bu ndaw xam nga lii xaaroon nañ ko surtout discipline du man duma ma sax nangu ni làmb ji rek la mais c'est toutes les disciplines sportives bien vrai que làmb ji dafa am particularité xam nga làmb ji làmb xam moo populi et puis làmb huis clos gis ak li tax ci làmb yëpp li ci laxasu yëpp huis huis clos huis clos mosu am donc mun na nekk décision boo xam ne mais est-ce que tamit li saa bi wax du interpréter tout le monde pour sportif gën a wanewaat na ñoom ils sont à la hauteur par rapport rek ouverture bi nga xam ne mais c'est ce que ministre attendait. bu gisee mu def euh, solution bi c'est parce que il s'est rendu compte que. respecté nañu mesures barrières yi en tout cas jusqu'à présent à plus forte raison que bu fekkee public bi dafa yokk dañ koy respecter on est obligé. sinon l'État est capable d'arrêter. puisque ñun loolu lañ doon jooy loolu lañ doon euh, jàmbat kon léegi dañu ni leen. vous allez prendre vos responsabilités. Nous allons voir avec vous si vous pouvez respecter les mesures barrières. Mm -hmm. Si vous les respectez, tant mieux. Si vous ne les respectez pas, on est capable de prendre d'autres mesures. Donc la responsabilité est dans notre camp. Je mhm. crois que liñ doon jooy di ko jàmbat bëggoon ñu defal ñu ko bu ñu ko defalee je crois que occasion la boo xam ni tamit duñ ko raté non seulement dégg nga li Salif wax il ci biir compétition yi nga xam ne amuloon public des mesures étaient respectées. Mhm. kon bon léegi bu ñu fekkee ni dañu euh, nii public bi war na revenir dañu war a doubler sax respect bi ñu joxoon mesure mesures yi pour gën ko respecter pour ñu xam ni kon on peut aller en public pour as pour assister les sportifs pour participer aussi ci li nga xam ni mooy euh, arrêter mu wàññi tamit euh, épidémie bi. Mhm. puisque ubbi ko pour mu yokku ce qui laisse entendre que dina am ay bilan dinañ def ay étapes. mais je pense que on a assez compris puisque toog pendant un an amuloo public ñu naan compétition yi dañ koy def à huis kooku Malick je crois que liñ ci daj bu ñu ubbileetee bunt yi je crois que c'est une occasion pour nous de leur faire comprendre qu'on est capable de gérer la situation. Sall ban ban impact am tamit sur le plan économique parce que nañu équipe yoo xam ne tamit pratiquement ay ay équipe mbuur exemple. ñoom bu ñu recevoir pratiquement ñoom ko joué équipe yi nga xam ne am nañ public ban impact la war a mën am comme Pikine sur le plan économique. d' abord impact économique ak impact sportif. Mhm. équipe bu ñuy accompagner. Mhm. public bu muy accompagner équipe bu ñu dul accompagner bokkul. Mhm. de e, prends l' exemple de Liverpool. Liverpool ku ñëwoon Anfield. waaw waaw donc euh, donc forcément dafay am impact effectivement y' a un impact économique suñ jëlee benn club boo xam ne comme Casa Sport. Ziguinchor match foofu même fii à Dakar. déjà ne Pikine. Pikine exact bon Pikine aussi je peux parler Pikine Linguère de saint waaw dans les régions bon tu peux multiplier non sport daal public lay àndal. Uh-huh. mais maintenant y avait un cas particulier ñëpp xam nañ koy fallait qu'on s'adapte mais franchement sport daal balaa muy neex public bi nekk fa. fu muy prix prix nekk fa di fàttali tamit ci wàllu résultat Ligue 1 bi sax euh, euh, Gorée Tëngéej daf ko gañewaat 1 à 0 bañ taxal ko sax ak ak ak ak Sidaat Sarr. Euh, an Sidaat Sarr. Douane gagné Stade Mbour 2 à 1. Casa Sport tamit gagné Mbour Petite Côte 2 à 1. 0 bi partout entre Jàmbaar ak Génération Foot. ñaari tali gagné SNEF. 1 but à 0 1 à 0 respiré. Jàmbaar gagné Dakar Sacré-Cœur 1 but à 0. ah Salif ban lecture mu def ci dixième journée bi ak résultat yi nga xam ne. ban interprétation lañ ci mën a def. d' instabilité mhm. euh, yi. yi <laughs> parce que équipe Sénégal c' est rare nga gis koo xam ne mu gagné trois ou quatre matchs de suite c' est extrêmement rare dina am sax. je pense que. mais loolu c'est du nivellement par le haut. exactement nivellement par le haut moi je vais considérer ça comme nivellement par le haut parce que xale yi ñu ngi ñëfe xam nga gars yi. dañuy mm-hmm. gën a dem stade. Mm-hmm. bon sa suñu grand bi moom xam nga temps soixante dix yooyu lañ seetaan de dimanche joueur. Mm-hmm. de loolu la ñu wax ñun seetaan ñu mais xale yi ñu ngi lu la preuve. la preuve. Sénégal d'habitude gars yi y a beaucoup de gens ñu bëri dañuy wax ci football Sénégal actuellement du ñu dem seetaan yi. bëri na bëri actuellement Ligue de française. Mhm. Ligue 2 française joueurs yi gën a xarañ championnat Sénégal lañ jógee. Mhm. ñoom Moustapha Naam. Mhm. ñoom. Euh, Sarr sa sa Sarr Sarr léegi Ligue mais am na benn jeune bu nekk bu nekk Grenoble. Euh, bu nekk Grenoble bu nekkoon ñaari tali j'oublie son nom. dafa jaar Suisse après muy Grenoble aujourd'hui fait partie des meilleurs buteurs ba. Pape ba actuellement il fait partie des meilleurs de je peux citer encore six ou sept jours même dix jours yoo xam ne ñoom ñoo yor équipe yu nganda lañ nekk de. yoo xam ne latéral gauche équipe nationale Sarr mi ngi mi ngi joué Valenciennes. Mhm. six ou Sarr. six six Saliou ah, six Saliou six waaw waaw Saliou six waaw doomi Ibou Kaña la Ibou Kaña mooy papam mhm. waaw Ibou Kaña mooy papam mhm. exactement donc effectivement y a de dimanche xam Sénégal da ngay dem fii rek. ça veut dire condition ñoo réunirul fii complètement dañuy dem donc il y a de la qualité dans notre championnat mm-hmm. donc aujourd'hui les équipes recrutent entraîneurs yi sont plus sérieux ainsi dans la gestion xale yi xam nañ ne fii championnat intermédiaire la rek mm-hmm. dañuy dem defaru fii rek après dem donc le problème instabilité effectif yi la par exemple Gorée boo xam ne ndax lañu si daal mais xoolal au moins trois ou quatre jours de Gorée daaw ñu ngi jaraaf ñu ngi mm-hmm. joué de la CAF Rémi Bocandé bi connaît nga jël kii tam euh, Mbeng. Euh, Ousmane Mbeng donc au moins trois ou quatre j' j'avais un quatrième en tête je l'ai oublié donc hmm. équipe boo xam ne day perdre chaque fois ay nit c' est que bon Gorée daaw aussi ça marchait pas. on comprend pas pourquoi ils sont partis au Jaraaf. c' ça donc donc parce coupe de la CAF boo xam ne dañu bëgg a dañu bëgg a jaayu. jaayu y' a sur le plan financier. c' est vrai donc. bu il a plus de 30 ans. ça c'est vrai aussi mais bon parfois il faut de l'expérience pour faire une équipe mm -hmm. de toute dans l'autre bon si je veux dire tout juste que il y a de la qualité dans notre championnat il faut un encadrement mais les équipes se tiennent de très près ay 1-0 ngay dégg 90e ñu ñu patal la benn affaire yooyu ñu yàq sa match bi yëpp affaire yooyu Gorée encaissé dans les arrêts du jeu mm, contre Teungueth FC mm. le Jaraaf qui a qui avait c'est les les équipes se valent loolu la équipe yi daal doole bi dafa xaw a yem. mais est-ce que tamit loolu amul njeexital ci wàllu seen participation ci ligue ci Coupe d'Afrique interclub yi. il faut prendre un mot plus compréhensible. ça ça cest ndax amul euh, maanaam mm, impact positif. ci interclub yi nga xam bien sûr bien sûr mais xoolal euh, xoolal suñ suñ équipe nu ñu qualifié wu. Mhm. que tam seen effectif changé wu dañu ngi kii parce à cause de Covid bi. Mhm. Euh, équipe yu bëri defuñu transfert. Mhm. boo xoolee Teungueth FC boo xoolee Jaraaf euh, Jaraaf c' est la plus expérimentée du championnat. Mhm. boo xoolee effectif Jaraaf bi ñoo gën a expérimenté bon du ñu perte de compte étoile sportive du Sahel vraiment da ngay am ay regret. mais est ce que Teungueth FC aussi est ce que tam perte euh, la ñu perte affaire yooyu bon expérience la au niveau la mais la qualité est là maintenant il doit oser un peu plus

jóge fa di tàggoog moom dina am lu bon bon lu mu def parce que daaf tamit il avait quand même créé. Hmm. quelque chose là-bas. non c' est c' est l'un de nos meilleurs techniciens au ah, Sénégal. Ah, ah. dañuy fàttali ne il a été champion du Sénégal avec. port du nom de Dakar. à huit journées ou sept journées de la fin. exactement donc am na hmm. label bu mu fa exactement. ci liggéey ci liggéey ci lépp kay il a été champion. Hmm. Euh, il a qualifié l'équipe ñu dem Coupe d'Afrique donc c'était un élément extrêmement important les gens ne comprennent même pas naka lañ def ba peut-être il a fait un choix ouais, mais ce qui ce qui me paraît un peu compliqué puisque tamit ni mu meloon ak Jaraaf tamit euh, en tout cas daal séparation bi lu bon am na lu mu wàññi mais le Jaraaf a toujours des chances mm-hmm. parce que comme a dit Salif perte na match bu njëkk bi mais boo seetloo si ni mu perte premier mi tamit euh, Euh, bañ a def yenn fautes yi ci yenn diggante yi mu indi loolu mais je pense que euh, fii match bi nga xam ne daf ko fiy joué ah kañ lay joué. demain je crois mercredi mercredi lay joué mercredi lay joué bu gagné match bi dafay mm-hmm. seen bopp am nañ yaakaar ni mën nañu gagné puisque poule bi ñu nekk c'est jouable certes il y a deux équipes tunisiennes mais tamit diggante Jaraaf ak équipe bu Burkina Faso bi en tout cas tout est jouable Jaraaf n'a pas encore perdu. Mm-hmm. certes Teungueth football club. Euh, ay chance am wàññeeku nañ si défaite bi nga xam ne am na ko fii contre Mouloudia. boo seetee match bi ni mu demee. nga xam ne mënoon nañ si génn ak victoire sax puisque am nañu ay occasion de but yoo xam ne marqué wuñ ko loolu yëpp apprentissage la rek parce que compétition yi boo fa gëjee boo ñëwee tu réapprends. ndax il faut être permanent. c'est clair waaw boo fa gëjee rek dafa am loo xam ne daf koy wàññi je crois que loolu jàng nañ ci te it on a de fortes chances de ne pas sortir ridicule. de de de de deux am na match bu muy joué. Mhm. ëllëg wala après demain. Mhm. demain demain te it am na ci yaakaar. moom Moulou Dia waaw moom moom Moulou Dia. Mhm. bu Alger bi bu ko gagné woon fii. donc daal tout est possible encore puisque ñu ngi ci phase assez aller yi. bon ñu ngi si phase retour yi te tout est possible je crois que. Tëngéej mën na replacé wu jaraaf tamit am nañu yaakaar ni premier match bi nga xam ne daf koy joué à domicile surtout. daf koy gagné. Salif est-ce que mën nga wax tamit ne lii. bonne santé football local bi la. mais c'est clair c'est clair que. Mhm. am na impact bu positif suñu football bi mais surtout xale yi daal dañu war a lâché wu. Mhm. parce que premier objectif. bi objectif bu gën a mag. mooy dugg phase de poule. Mhm. depuis avec la gendarme de Dakar kenn demul phase phase de poule. maintenant dugg nañ phase de poule ils doivent se lâcher ils doivent se faire plaisir. parce que ils sont fu mu nekk nii top africain bi lañ nekk. donc nañu nañu lâché nañ nañ lancé fu loolu dafa dafa am solo trop donc am na njeexital eh, ci eh, li nga xam ne rek moom moo jëm ci football local bi danañ ànd ak Aliou Goloko léegi parce que moom tamit ku xam compétition africaine yi la yàgg na nekk sax. mais Malick xam nga ni tamit ah. a parlé de la Ligue 1. on n'a mhm. pas parlé de la Ligue 2 dinañ dinañ ñëw ci Ligue 2 bi léegi. nañ ci dem léegi rek. Ah, allez-y génn ci. Mhm. Ligue 2 bi tamit joué nañ seen deuxième journée. Euh, dimanche dixième journée dimanche. Kër Madior ak Africa Promo dañu def match nul 0-0 Port Wakam gagné ko 1 but à 0 Tëngéej football club gagné Amitié football club 1 but à 0 Jamono bu Fatick ak Linguère dañu def match nul 0 bi partout Duc gagné EJ Fatick 2 buts à 1 tey jii ci altine ji ci la Sonacos di joué ak Guédiawaye football club Renaissance de. match bi jeex na sax kii moo kii kii kii kii moo gagné. Euh, hmm, Guédiawaye moom moo. moo gagné Sonacos moo gagné Sonacos waaw. bon renaissance wala jur moom tamit ak Demba Diop. Mhm. donc résultat yooyu bu ñu ko amee dinañ mën xam exactement comment ça se passe mais jusqu'à présent Linguère moo jël première place bi puisque 24 points la am euh, ki ci topp di Wakam am 16 points. nee nga Sonacos dafa ñàkk. waaw dafa ni koy yom ak gagné waaw. voilà kon kon euh, Wakam moo nekk moo jël deuxième place bi. Ah, kon ñu ànd ak euh, Aliou. Goloko Goloko Aliou su defee mu waaw maa ngi lay nuyu Malick di leen di leen fay. yéen mhm. eh, eh, ñu wax ak yow ci euh, ci li nga xam moo jëm compétition africaine yow nag euh, yàgg nga ci euh, compétition inter interclub yi naka gis tey tey jii li nga xam ne Sénégal def na ko jaraf ak Tëngéej par rapport ak seen présence ak seen prestation ci interclub yi. waaw seen xam loo gis rek am na fu mu fu muy dooree. Mhm. Euh, Sénégal euh, euh, réussir ñaari équipe ci phase de compétition mhm. phase finale yi muy Teungueth FC ci Ligue des champions bi Jaraaf ci Coupe de la CAF mhm. muy loo xam ne luy wane ne footballu Sénégal daanaka footballu club li ñu doon wax ne moo doon parent pauvre suñu football ndax équipe nationale bi rek moo doon moo doon fës waaye léegi mën nañu wax suñu club yi ñu ngi ñu ngi commencé yëkkati ko ci ci mbirum football bi donc loolu lu baax la ci sunu football je pense que dina motiver yeneen équipe sénégalaise yëpp ci championnat local bi te dina may suñu ay joueurs yi évoluer suñu championnat ñu am exposition pour gën a mun a wane seen bopp wane ne tamit talent Sénégal du rek ci équipe nationale A bi mais ci petite catégorie la ci club bi la ci football féminin bi la ci fépp la ci football ci football bi daal. Hmm. mais lan nga yaakaar ne moom suñu équipe bi def ba dab ñi nga xam ne ñoom ñooy les ma dab sax ba commencé di leen titiller les grandes équipes bi nga xam ne sax te ngeen mooy éliminer Raja de Casablanca. expérience. Hmm. expérience ak métier. Hmm. ñu nekk nii ci phase apprentissage ak jàng lañ nekk. parce que club mu mujjoon nañ gëjoon nañ fa yegg ci niveau bi mais ça veut pas dire que waruñu am nii lu ñu am rek jël. mais plus ñuy participer ci phase euh, finalu club yi plus ñuy am expérience plus ñuy am métier plus ñuy maîtriser euh, technique de voyage yi ci Afrique parce que voyage Afrique métti na trop. Mhm. Euh, su boobaa dinañ gën a gën a gën a xarañ ak gën a mun a nekk ay habitué ak di gën a mun a défendre seen ay chance mais li ma mënta wax parcours bi équipe nationale bi def ak dirigeant muy jaraaf ak Teungueth FC yëpp. Mhm. ndax dañoo bokk ci fédération bi. am nañu léegi expérience préparation voyage yi parce que gis naa. Mhm. jaraaf avant muy dem Zimbabwe. Mhm. Teungueth avant muy dem euh, Tunisie. gis naa seen dirigeant ni noon doon préparer voyage bi ni ñu doon anticiper problème yëpp pour de telle sorte que ñu bañ am ay tolof tolof ci voyage bi e loolu je pense que seen dirigeant yi parce que ñu ngi tamit ci environnement proche équipe bi. et loolu moo tax ñu gën a assimiler euh, exigence au niveau bi pour mun a préparer seen équipe yi bu baax. léegi nag li def ci terrain bi la terrain bi nag métier bi ak expérience bi plus ñuy jouer match ci niveau boobu plus ñu am expérience euh, plus euh, ñu ñu ñu gën a am chance pour mun a sori ci compétition bi. Hmm. mais ça veut pas dire ren ren mënuñu bañ am dara mun nañ am tamit ren ñu créer surprise njëkk a ñëw rek dem quart de finale wala demi finale lépp xaj. bu doon perdu. mais euh, mais est xam ne baax na ñoom pour ñu mën a acquérir expérience ak métier. voilà dañ àndaat ak Aliou si kanam tuuti. bu mm-hmm. dem Aliou bu demoon. Ah. Ah, dañ àndaat il ñu waxtaan ak yow ci réunion comité exécutif bu CAF bi. Ah, laata laata ñu dugg foofu sax dañ bëggoon ñëw ci euh, li nga xam ne rek moom mooy décision yi nga xam ne club inter club européen jël nañ ko xam nga dañuy wax ne sa Euh, euh, dañ dañ àndaat ak dañ. xam nga maa ngi ci rajo bi mais dinañ danañ àndaat ak. surtout si duñ ñu Aliou ci ci hmm. euh, li nga xam ne moom moo jëm ci comité exécutif bu. ci décision yi nga xam ne jël nañ ko jël ko ci réunion bi ñuy def Rabat. Oh, Rabat gis ko dafa am na ay changements yu bëri ah. Hmm. waaw ndax Salif. sànq bi ñu ubbi waxtaan bi waxtaan nañu candidat euh, Augustin mi ngi si finalement ni mu mujjee. waaw dañu mujj waxtaan seen biir. am koo xam ni moo jiitu ñu si sa topp ci ginnaawam. d'accord yow bi nga amee maanaam euh, écho yooyu ban euh, lecture nga ci def ak naka nga ko gisee. bon man dama am regret. Mhm. regret pas parce que élection amul. Mhm. mais pourquoi suñu suñu dirigeant yooyu ñu bëgg a nekk président mënuñu dëggoo ñoom ñuy mhm. xaar. ba keneen defar ay benn compromis mu ñëw tegal lañ ko mm-hmm. parce que ay dirigeants yu mag lañ mm-hmm. ku fa nekk kat yu ma xam ñu fa bokkoon mm-hmm. que ça soit Senghor Ahmed Yaba Yaya Motsepe wala Jacques Anouma ñoom mënoon nañ dëggu ne Motsepe parce que effectivement na kenn jiitu c'est ça non mën na nekk Motsepe kii du ça le canevas là pas mauvais en soi parce que merci loolu moo may gêné. parce mhm. que am nañ xarañ nañ am nañ xam-xam affaire yooyu. mënoon mhm. nañ dëggoo quoi. mënoon mhm. nañ dëggoo parce que effectivement kaaf dafa toll si diggante. et puis du guléet mu am élection gars yi compromis. toujours moom fii. président CA confédération africaine d' athlétisme. Euh, Lamine Diack. président Lamine Diack l'un des plus grands dirigeants sportifs du monde. Théophile Moncho béninois bi moo bëggoon. kii euh, présenté contre Ahmed Kalkaba Malboum. en 2007 mm. avril. Dakar mm, fii bien sûr. assemblée générale mu ne mu woo moon show mu ne ko da nekk premier vice président la deuxième mais doo présenté mm-hmm. mm-hmm. la présidence de l'ANPS. Mm-hmm. notre ami Ablaye Thiam et notre ami Arouna Deme. mais on a cherché un compromis. même Konos Konos ak donc euh, Ablaye Seye. c'est des choses compromis yàgg c'est des choses qui existent. mais à l'interne. oui mais man lu ma gêné comme je t'ai dit. dicté bu ma am di dicté oui mais mun nañ ils pouvaient s'entendre quoi mënoon nañ sans sans l'intervention de la FIFA. exactement entre ñoom ñu waxtaan juste benn solution affaire yooyu bon bon CPC il peut apporter beaucoup. beaucoup surtout dans la situation actuelle. Mhm. de la CAF. Mhm. loolu moom a xaw a. donc loolu moom a xaw a mën apporter donc saa suñu déggee sa suñu déggee sa say propos maanaam li nga xam ne rek moom moo jëm ci ci ci wàll wi li nga xam ne rek mooy intervention FIFA pourtant ils ont essayé au niveau de l'Afrique de l'Ouest mais ils n'ont pas réussi à trouver une candidature unique. Mhm. mais li ci xaw wax nga ko léegi moom mooy. FIFA bu ci dugal loxoom FIFA Afrique. parce que boo xoolee boo. <laughs> waaw mu ñu wax loolu léegi. masala FIFA Afrique. boo xoolee. Mhm. tous les tous les kii nu mu tudd euh, tous les candidats au moins les trois de l' Afrique de l'Ouest boo leen laajtee. Mhm. non moi ma porte est ouverte la lay wax. Mhm. donc mun naa négocier. boo xoolee seen plan programme bi aussi. ay convergence la si affaire yu bëri dañu dëggoo nañu. Mm-hmm. donc lan moo des. Mm-hmm. ñu toog réellement waxtaan ak Motsepe. Mm-hmm. parce que Motsepe bon aujourd'hui l'Afrique euh, la CAF a besoin de beaucoup d'argent. du Motsepe mooy génnee xaalis. mais mais il a réseau am na réseau am na carnet. clé la pour ubbi affaire yu bëri. loolu la quoi ban bon mais comme je t'ai dit encore une fois man regret bi le fait que on a semblé leur dicter cette affaire la or pour moi c'est des gars assez responsables mun nañ toog waxtaan trouver benn solution waaw mm-hmm. mais le cas de Augustin qui a été nommé premier vice-président mm-hmm. dans le bureau il n'est chargé de rien du tout il est tout simplement premier <laughs> vice-président est-ce que xalaat nga ne loolu tamit moom en fait loolu la bëggoon wala on lui a tendu la on lui a forcé la main pour pour mu accepter poste bi puisque euh, il est vice-président amul benn charge bu ñu ko jox mais ba pare jël un secrétaire général nommé ko mm-hmm. est-ce que tu n'as pas ça peut être un poste comme ça. mais de toute façon de toute façon ñëpp xam nañ ne. dans c'est le numéro 2 de la FIFA de la CAF mais de toute façon dans les grandes organisations sportives. kan lan ñaari poste ñoo si am important. mooy président bi ak secrétaire général. maintenant c'est à Augustin de mettre un contenu dans ce poste de premier vice-président. comment celui qui le ou c'est la CAF qui le met. non moom dafa am programme quand même. Euh, dañuy ne dañuy kii dañuy. Euh, pour yow il n'a pas perdu dans cette affaire-là. on aurait souhaité. vraiment parce qu'il a un profil. vraiment mais mais Kaaf dafa tollu diggante aussi. nañu waxante dëgg. moi j'aurais préféré qu'il aille. au euh, bout de la. mais Augustin quand même a compris aussi. parce mhm. que c'est une question de. cest il y a des nations qui n'étaient pas peut-être avec lui. non c'est même pas sûr. parce que moom yàgg na quand même depuis 2009. il est mais quand on dit que l'Égypte le ce pays-là n'était pas avec lui. non seulement c'est un peu compliqué. Non, non, peut-être il a compris qu'en allant aux élections, ça pouvait aboutir peut-être à des difficultés. Mais c'est clair. Et tu n'es jamais sûr. Même ñoo xam ne dañ ne yow la mais attends, il a eu le problème en 2013 aux mm-hmm. Seychelles. quand il était avec Jacques Anouma. il se donnait des questions de principe. Mm-hmm. gars yi dañu pousse dañ ko pousse ba si biir géej bi ñu bàyyi ko foofu ñu dellu si. loolu après. nous on a même eu des problèmes avec les arbitres ici je sais pas si vous vous rappelez bien. ba arbitre di siffler lu leen neex. contre Sénégal donc. aujourd'hui c'est le profil c'est l'expérience qu'il a. Mhm. bon expérience bi daf ko wane ne. c'est pas actuellement affaire bi gars yi lii la ñu bëgg. Mhm. mais boo xoolee bureau bi comité exécutif bi nga xam ne bon <laughs> le plan programme de la de la FIFA les gens loolu la ñu d'accord. Ah. waaw loolu la ñu d'accord ñu ak ñu ngi ak Aliou euh, Goloko moom moo nekkoon porte parole mooy porte parole Kanda Kanda Augustin Senghor nekk tamit ku xam rouage yi comment ça passe au niveau de la CAF et de la FIFA alors Aliou euh, dégg nga li nga xam ne Salif wax na ko trouvé nañ ba terrain d'entente waxtaan ñu ci bëri li leen xaw a jaaxal mooy pourquoi africain mu ngi surtout terrain d'entente maanaam def ko sous la dictée de de la FIFA. je Malick peut-être li ma war a préciser c'est vrai que maa ngi doon euh, jàppale Augustin ci ci campagne am. Mhm. mais joxuma woon fonction officielle lu. Ah, ah, ah, porte-parole kon <laughs> d'accord. donc euh, mais Aliou yaay porte-parole bi. mais Aliou mais Aliou porte-parole mais Aliou. waaw dama gis que man bu. Pra yaag fu conférence par exemple yaa ngi njëkk a taxawoon. waaw waaw mais mais comme mais comme que officiellement joxuñu ma woon fonction boobu. ah d' accord doo ko jël bëgguma ko usé. <laughs> d' accord Aliou on est. y' a pas de problème mais effectivement maa ngi nekkoon ak moom maa ngi nekk ak moom ba tey. Mhm. ci ci processus bi yëpp. Mhm. Euh, def na campagne bu rafet. Mhm. campagne bu ñëpp d' accord. parce que candidat la boo xam ne am na crédibilité bi am na. légitimité bi am na reconnaissance bi am na légitimité bi. donc su boobaa liggéey ak moom dafay yomb loolu moo tax tamit baal leen mm-hmm. Mm-hmm. loolu moo tax tamit mu mu mu mu yegg si fu mu yeg si fii nii ci ci ci protocole bi alors li tax FIFA moo war a dimbali africain yi ñu trouver consensus bi mm-hmm. euh, man euh, ci sama gis gisu bopp choqué wu parce que FIFA Afrique moo ko moom Afrique ci la bokk Euh, CAF FIFA ci la bokk ndax FIFA mooy institution faîtière bi. Mhm. donc ay partenaires privilégiés la ñu. Mhm. ñoom ñooy ànd ñi ñi nekk Afrique ñoom ñoo constitué FIFA. Mhm. donc mënuñ ci seppi africain yi. tout à fait donc lañ ko nangu neew donte sax ay tubaab ñoo jiitee FIFA tey mais c'est parce que africain dañ ci am wàll moo tax ñoom it war nañ mën a dox dox ju rafet doxu njàmm pour boole africain yi yëpp ñu nekk benn. te li ko gën a yombal tamit ba ñu bàyyi africain ñu waxtaan suñu ñu consensus. Augustin euh, bëggoon Jacques Anouma ñëw jàppale ko ak euh, Ahmed Yaxya mais ñaan ñooñu ñëpp dañoo bañoon pour euh, gën a dëgëral candidature am mhm. mais ba FIFA doxee dox tànku jàmm président Infantino def tournée def seeti chef d'État yi seeti président fédération yi waxtaan ak ñoom après jox lenge ki marocain yi ñoom jot nañ ci ci dugg ba candidat yi mun a toogoon da waxtaan am solution consensuelle boobu donc. Euh, mais mais mais Aliou lu ñuy rafetlu la waaw. Aliou yow affaire bi xam nga ci lu bëri. c'est-à-dire oh. gis nañ ne pratiquement Augustin dem na fi su ma juumul dem na fi Abidjan. Mm-hmm. Anouma ñëw na fi ñoom à l'interne il il j'étais dans ñu baal ma ci wax di. dans l'incapacité de de trouver une solution un terrain d'entente pour une candidature unique. c'est-à-dire. non non trouver ñu parce que. Ah, multiplier nañu ay rencontres tout. mais kenn nanguloon désister au profit de keneen kii. ils ont désisté parce waaw euh, Augustin moom moo ci moo ci ëppoon chance. Mhm. et moom ba léegi moo doon jàppale Jacques Anouma saa yi ko Jacques Anouma sollicité woon. Mhm. pour une fois moom mu laajoon sollicitation wu Jacques. Jacques euh, nanguwul aligné wu donc à partir de cela situation bi dafa doon compliqué. Ahmed Yaxya moom it nekkuloon ci optique boobu moom dafa newoon nañu xaar bo ku ci mieux placé deuxième tour keneen ki jàppale ko. Mhm. donc à partir de ce moment nga dem ci élection boo xam ne. amuloo. Euh, euh, Afrique de l'Ouest yaa ngi am trois deux candidats. c'est-à-dire sa vivier voix am nga yeneen ñaari candidats yi fa mën mm-hmm. boole ci nga am euh, contre yow FIFA Maroc ak Égypte parce que ñoom ñu ngi taxaw ci même position que FIFA. Mm-hmm. à partir de ce moment il a fallu être réaliste et comprendre que solution bu ñu doon proposé. Mm-hmm. c'était la meilleure solution pour le football sénégalais. parce que au-delà de la personne de Augustin. c'était beaucoup plus les intérêts du football sénégalais qui étaient en jeu. Mhm. mais symbolisé symbolisé par le président Augustin Senghor. mais moo tax au delà de sa personne. d'accord gars yi moom waaw moom mooy symbole bi mais mhm. ça va au delà de sa personne. Mhm. fàttaliku leen jamono ñi doon opposé wu Issa Yato. lu ne def nañ ko lu ne fay de la réalité c'est la première fois qu'un Sénégalais devient de la confédération de football. et aujourd'hui on est un pays qui compte dans la gouvernance du football parce que am nañ secrétaire général FIFA boo xam ne sénégalaise la mhm. muy jigéen ju xarañ mhm. Fatma Samoura mhm. am euh, vice-président premier bi euh, Augustin Senghor lu tax ñu proposé ko moom premier vice-président alors que yeneen candidat yaa ngi foon loolu rek doy na firnde c'est parce que wóolu nañu compétence am wóolu nañ talent am te xam nañ ne mun na ko et, et aujourd'hui c'est c'est pas mauvais. Mhm. il est dans le il est le système mu ngi ci biir ci ñuy décider la bokk day bokk comité d'urgence bokk comité exécutif et puis Augustin xale la. Mhm. dina gën a mun a wone lu mu mun. Mhm. et puis plus ñuy avancer euh, on, on verra bien nan lay taxawoo foofu Afrique ak Sénégal. mais kon euh, xalaat nga ni kon post bi ñu ko jox. poste consolation la wala post la boo xam ne. non non il s'agit pas non non non nekkul ci situation consolation. Mhm. Euh, Augustin bu ngeen seetla ci début campagne am. Mhm. toute la campagne da ko doon articulée autour de l'unité mhm. dafa doon unité football unité football africain parce que loolu moo doon exigence du moment il fallait ñu am suñu unité bu ñu bëggoon sori ci ci mbir mi donc euh, moom unité boobu mu doon prôné loolu la jëf rek loolu loolu la jëf. Mhm. loolu moo ko waral mu mu yegg foofu. Mhm. nee na il n'a pas eu peur ni honte. Mhm. de taire ses ambitions personnelles au profit de l'unité du football africain. Okay. Et, et parce que y a beaucoup de de de de circonstances qui ont joué en la faveur. peut-être de Motsepe. le fait que anglophone yi aussi ils étaient en bloc ñu ne anglophone yi gëjoon nañ diriger CAF. le fait que FIFA euh, Motsepe lañ doon jàppale. ak yeneen ak yeneen war a tax ne euh, situation bi dafa doon compliqué te bu ngeen xoolee euh, élection bi nu mu jeexee. Mhm. tous les candidats yi FIFA souteniroon ak mhm. tous les candidats mhm. anglophones ont gagné à tous les postes. CAF noonu la élection di demee. bu benn groupe gagné rek. day raflé poste yëpp. Donc, euh, ce n'est pas, euh, ce du tout de la consolation. Mm C'est parce qu'ils ont regardé, xam nañ ne dafa war a bokk ci ñi décidé pour football Sénégal. Mhm. ñu boole ko si. Mhm. jox ko foo doole bu bu mu yelloo. Mhm. ak euh, position bu mu yelloo. mais waaw et en le faisant c'est une reconnaissance de. de, qualité des qualités de dirigeant du football sénégalais et euh, au-delà de la personne d'Augustin. Mais et le poste de secrétaire général qui a été confié et créé au niveau de la Confédération kooku tamit euh, est-ce euh, c'est pas une forme de donner justement à ce à à cet ami de d'Infantino un poste extrêmement important parce que secrétaire général tamit c'est important. mais le poste qu'il occupait était beaucoup plus important que celui de secrétaire général de la CAF. Wow. Il était le numéro 3 de la FIFA, mm c'est-à-dire le directeur des associations membres. Mm -hmm. fédérations et ci monde ah, mais il n'était pas secrétaire général de la CAF. Euh, non non ouais, boobu moo gënoon fort secrétaire général CAF. ah bon moo moo ko ëppoon exposition moo ko ëppoon moyen moo ko ëppoon lépp. mu décider renoncer loolu yëpp pour ñëw liggéeyal Afrique parce que nee na c'est le, le continent mère qu'il appelle mhm. loolu je pense que c'est tout à son mérite et, et je pense que c'est quelqu'un qui projetait qui pilotait le projet Forward mhm. donc xam na développement et que dina mën a bu baax a baax a baax ci développement au football africain parce que quatre dernières années yi loolu rek la doon def c'est quelque chose de très bien Euh, donte sax euh, màggeewul Afrique mais doomu Afrique la Congo la juddoo. fa la mhm. def ay am. Mhm. doog a dem Suisse. da am tamit nationalité suisse am expérience am métier liggéey na e liggéey na FIFA mhm. donc ki teg foofu place am la nekk am na expérience bi am na métier bi te am na connaissance bi te am na support FIFA li nga xam ne dina di mën a ñu dimbali bu baax pour yëf fi mën a avancer loolu lu am solo tamit mënuñu ko ñu ko réero waaw dañu àndaat ak Aliou si kanam tuuti sax àndaat ak moom ñu dellusiwaat ci plateau bi ak ak Salif Salif li nga xam ne Aliou euh, développé na ko yëpp <laughs> euh, euh, di ko ci di ko remercier parce que moom tamit temps mayeti rek sant sant yàlla <laughs> dans le ah, ah, ah. mais mais Salif buñu del si gis nañ tamit loolu yëpp avant muy am yaa yaa cette tournée de Infantino mm-hmm. def Sénégal su ma juumul dem ci yenn dëkk yi après dem dem Abidjan est-ce que tamit du dem na Abidjan dem na dem na Abidjan non dem na Abidjan Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique du Sud la dem. Afrique du Sud la dem na jógee ñëw Sénégal. def dem demoon Abidjan ak Congo. Congo ah. waaw c'est-à-dire ndax mënuñu wax ne tamit ñii nga xam ne ñooy candidats yi ils étaient obligés face à aux états de de se à la volonté des états avant même de parler de la FIFA. boo xoolee baax processus bi. Mhm. Euh, le président Antonio Souare. Mhm. lors de l'assemblée générale de la euh, de l'UFOA la wax. Mhm. mu ne élection bi parce que dañ ko laaj lu tax yenn interview leen mu ne élection bi moom chef d'état ñoo koy wax ensuite aussi xam nga gars yi dañuy bëre wax rek mais yow soo nekkee candidat pour organiser CAN il faut nga am caution sa état état wu Sénégal mm. sinon doo ko mën organiser c'est ça donc football c'est des postes euh, c'est des portes ouvertes mm-hmm. xam nañ ne par exemple euh, depuis Afrique du Sud ak kii nu mu tudd Maroc di doon jo joŋante ah c'est mm-hmm. comme ça pour la coupe du monde 2010. Mhm. suñu président bi temps yooyu Abdoulaye Wade demoon na di soutenir Maroc. Mhm. position Maroc ab sud-africain sax xaw nañ ko mere affaire mais mhm. bon ça ça veut dire que euh, football bi c'est un jeu avec lequel on ne joue plus et puis euh, ensuite encore lu du assemblée générale bi Véron bi Véron Mosengo Omba man jotoon naa ko sax interviewé après ça ici à Dakar mais lan la waxoon on n'a pas de candidat mais ça nous intéresse parce que il faut pas oublier que Afrique 54 fédérations. membres mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. et puis 2023 dafa am élection. waaw 54 fédérations. bu ñu fàttee ne Marrakech amoon na benn réunion bu mag bu amoon Marrakech. président temps yooyu Ahmad Ahmad moo nekkoon président. Gianni Infantino dafa ñëw avec son pro projet de une CAN toutes les. quatre ans. et une super ligue africaine des champions. Mhm. donc mm -hmm. il a beaucoup de programmes pour l'Afrique ainsi de suite donc c'est c'est aussi lui qui a lancé la super ligue européenne des champions. Mhm. était secrétaire général de l'UEFA. Mhm. et il travaillait avec Véron Ngo Omba le congolais d'origine le suisse d'origine congolais bu nekk actuellement. secrétaire général affaire donc. il a un programme pour l'Afrique à travers Forward mais Forward pour adduna bi yëpp la ainsi de suite donc ils ont des la ñuy jéem a taxawal. Ils ont dit que ça les intéresse, ils ne choisissent pas leur président, mais ça les intéresse. Mais ça, ça c'est très nuancé. Mais ça, ce que tu dis, c'est des plans d'aide à l'Afrique Non, ce n'est pas des aides. C'est un programme qu'il a mis en place mm -hmm. pour toutes les fédérations, mais surtout uh ah. -huh. pour, pour, les pays africains. Uh ah. -huh. Parce que nous avons le programme Fodwood. Mais si tu prends les pays africains, si tu prends les pays africains, c'est un budget pour part pour gagner mag. FIFA lay jógee. Mm-hmm. <laughs> FIFA lay jógee donc ñoom lu ñuy xoolee FIFA da ngay wax du sonn rek. FIFA fu mu leen lay xool leen foofu foofu la ñuy xool c'est ça la vérité dañuy wax rek c'est vrai que bon tout le monde est affilié tout le monde est au même niveau d'égalité mais africain ni ñu soxlee FIFA c'est pas la même chose que l'UEFA ainsi de suite. Mm-hmm. mais mais mais est-ce est-ce est-ce FIFA def Afrique mën na ko def UEFA. mais loolu laa lay wax nii. parce que mais pourquoi Afrique rek du sub du. mais parce que on n'a pas les moyens de aujourd'hui euh, ñun pourquoi temps yi année yëpp on a moins de problèmes le Sénégal. Mhm. parce qu'on se qualifie régulièrement aux compétitions euh, euh, mondiales. Mhm. en plus de la du PAF le programme d'assistance financière de la CAF et des programmes Forward. mais en plus de ça on se qualifie donc on a des sud euh, des des mhm. rentrées d'argent des royalties de la FIFA ainsi de suite. Mm -hmm. rappelle-toi Maître Senghor mos na à la vers la fin de la CAN. dafa am benn interview bu ngand c'est le sponsoring c'est le domaine où ça marchait pas quand Pambasata était là il a mené beaucoup de sponsors. Mais depuis qu'il est parti, depuis 2009, on n'a pas eu de gros sponsors. C'est le, problème aujourd'hui du football sénégalais. C'est le problème de beaucoup, de, de fédérations C'est pas la même chose qu'un pays comme la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Ils ont plein de sponsors. Mhm. Ils n'ont même pas besoin de l'intervention si la FIFA n'intervient pas en Afrique pour beaucoup de pays mais je suis pas sûr que football dina am ñun nañu fàttaleku cette année suñu club yi demoon Afrique ñaata xaalis lañ leen jox. Mhm. musul am dans l'histoire de parce que FIFA a donné un fonds Covid. Mhm. ils ont eu des quarantaines des cinquantaines de millions. donc ça ça change la donne ça mhm. change complètement la donne. donc il faudrait que nos fédérations <laughs> la main à la la exactement travailler dans ce sens-là pour moi loolu moo tax gars yi tendre la main à Motsepe. Mhm. pas seulement que pour que parce que dalal suñu zone de développement yi sax. Mhm. ñun il faut lañ nekk. Mhm. ñoom COSAFA lañ nekk compétition COSAFA ñoo gën a intéressant ñoo gën a am xaalis. parce que ils ont de grandes télévisions. qui mm. sortent euh, euh, qui diffusent ça. Mm. ensuite il y a de euh, grands sponsors autour. Mm. c'est aussi simple que ça. Mm-hmm. donc Motse peut apporter quelque chose à la fondamentalement moi je fondamentalement actuellement dans la situation actuelle de l'Afrique mm-hmm. Mm-hmm. c'est un moindre mal. c'est le crois sincèrement. même si effectivement les gens peuvent avoir son intérêt dans cette affaire est-ce qu'il aura le temps réellement ah. de s'occuper de ça parce qu'il est dans mille choses lu bëri la nekk c'est mille choses en même temps ça c'est une question mm-hmm. mais effectivement il peut ouvrir beaucoup de portes mm-hmm. soo si bu fekkee mën a àndaat ak Aliou Goloko laaj fi mu toll nii comme fal nañ ko urgence la urgence yi nga xam ne moo lan moo gën a jàmp loo xam mu ngi xaar kii di kii kii di Patrice Motsepe bi nga xam ne fan lañ ko yaa ngi wax léegi Pape wax na lu am solo léegi ci wàllu autonomie financière maanaam moom sa bopp moom c'est un d'abord milliardaire homme de réseau la wax nga tamit lu am solo léegi ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci réseau yi nga xam ne am na ko ndax boo xoolee sax seen compétition moom moo ëpp maanaam caf ka suñu suñu suñu bos alors ñu ngi waat ak Aliou euh, Aliou Goloko alors Aliou léegi Motsepe président de la CAF lan mooy chantier yi gën a urgent fi mu toll nii pour Patrice Motsepe euh, chantier euh, chantier yëpp urgent Malick mhm. parce que football africain tolloon na foo xam ne ñu ngi doon laam-laame ne dafay waaj a fayit ñu ngi doon wax ne c'est quasiment devenu désordonné que kenn dirigeetul kër geeg yooyu parce que le secrétaire général était intérimaire. Uh-huh. le président était intérimaire. mais au moins. <laughs> Uh-huh. léegi am nañu am nañu. Uh-huh. am nañu président am nañu secrétaire général. loolu c'est déjà gage de stabilité. su loolu weesoo euh, il faut ñu xool lu ñu dugalee xaalis parce que contrat Lagardère bi. dañu ko arrêté woon. léegi il faut ñu renégocier les droits autour du football africain. et puis bu ñu génnee ci droit yi ñu réorganiser lépp. administration bi def auditam réorganiser ko xoolaat compétition yi. Mhm. nuñ ko mën a améliorer euh, pour yokk valeur am ak yooyu. donc euh, lépp chantier la lépp priorité la. Mhm. mais ñoom defe naa xam nañ ko. ñi constitué comité exécutif bi xam nañ ko. léegi li des dañ ci war a attelé mais lu nit warul réeroo. li li gën a important. Mhm. ci réunion wu Rabat bi. mooy dañu décider def programme commun. dañoo jël quatre programmes yëpp boole leen def ko benn programme. Mhm. te ci programme boobu loolu léegi moo leen di servir. Mhm. de viatique. Mhm. et de chemin de fer. pour ñu mën a entamer. Euh, travaux d'Hercule yi ñu war a def ci football sénégalais. mais am na tamit beneen beneen jaaxle africain football africain am na tamit beneen boo xam ne gars yi def nañ ko jaaxle. étonnement maanaam li nga xam ne ñu ngi koy ruumandaat maanaam jëlee cadre bi lu jëm ci wàllu périodicité wàllu kan bi def ko quatre ans léegi. mbalal waaw mais mais loolu loolu Motsepe tontu na ko. Mhm. déjà ci première conférence de presse mu def jour élection am. Mhm. posé question bi. Mhm. il est hors de question de changer. Euh, datu CAF pour l'instant parce que fu mu ah, nekk pour l'instant pour l'instant Aliou. waaw ça veut dire que ce pas à l'ordre du jour. Ah, ok ah, mais mais mais l'envisager.

dina am kan Cameroun deux ans après dina am kan Côte d'Ivoire deux ans après dina am kan Guinée ou plutôt euh, l'inverse mhm. donc euh, pour l'instant man lii mu wax moom lan lay doylu maintenant quand le débat se posera mhm. su boobaa on avisera et puis euh, en toute réalité man personnellement soo ma laajee sama sama gis-gisu bopp. Mhm. man personnellement loolu sama bopp laay waxal ah. waxalu ma kenn man ci sama turum Aliou Goloko. observateur du football africain. Mhm. je ne suis pas contre une CAN tous les quatre ans. mais Aliou am na ñu wax tamit. parce que naar bu ndaw lu tax ma wax loolu. allez lu tax ma wax loolu. Mhm. su ma defee benn une CAN tous les quatre ans. damay maintenir CHAN bi. changer règle yi. Mhm. pour mun a permettre képp ku footballeur africain buy évoluer sur le continent. Mhm. mooy le projet de Augustin le projet de par rapport au CHAN. Augustin loolu ci li ci li mu xalaatoon ci CHAN loolu ci la bokkoon. Mhm, te loolu je pense que en fait kan bi gan la léegi professionnels yi ñi nga xam ne nekk nañu professionnel ñooy ñëw di football avec beaucoup de problèmes léeg club yi bàyyi leen léeg-léeg club yi bañ leen bàyyi. léeg-léeg bu ñu ñëwee il lève le pied ils ont besoin d'exposition, mmh. ils ont faim, ils sont motivés, ils veulent être et ils ont plus d'engagement. Mhm. et là gis nañ ko ci chan bi passé football infrastructure moo ko yore bu infrastructure yi baaxee rek. Mhm. lépp mat il y eu beaucoup de buts il y a eu de. Il y a eu beau football et il y a beaucoup de talents qui ont été révélés. donc euh, man. et su boobaa da ngay yokk tamit équipe chan bi au lieu mu nekk seize nga yóbbu ko vingt quatre par exemple. Mhm. wala euh, ba pare def ko formule phare. mun a jaay loolu mooy vrai football africain. Mhm. parce que boo jëlee football sélection A yi. léegi bi national yi yàq nañu équipe yëpp. Mhm. équipe yëpp bi national ñam ñu am. <laughs> da ngay gis équipe boo xam ne day jot mu dem jëli seize bi national ñu ñëw mhm. fubal. bu match bi jeexee ñu dellu seen beneen nationalité Europe toog. donc euh, euh, euh, ñu ñi ñàkkal fayda CHAN bi man per loolu si sama vu sur cet angle-là. Mhm. man je ne serais pas contre une CAN tous les quatre une CAN tous les quatre ans. Mhm. et un CHAN renforcé tous les deux ans avec le même cahier de charge que la CAN mhm. voilà waaw dañ àndaat ak yow si kanam tuuti mu nekkoon Pape <laughs> di Aliou Golo ko indi indi indi indi ci indi indi ci ay leeral donc saa loolu tam bokk na ci ay njàqare yi nga xam ne émettre nañ ko ay nit dañoo ragal pa que buñ ko joxee euh, lii mu def ko kan ak quatre ans mais loolu fi mu toll nii nee na c'est pas encore à l'ordre du jour. mu nekk lu am solo mais c'est pas exclu. waaw pour l'instant c'est pas encore euh, parce que effectivement mm-hmm. bon euh, on voit que Amad Amad rek moo mës a def loolu dans la vie cest dire bon ay équipe nekk candidat pour une CAN à 16. ñu changé les règles en kila même en Europe ça n'existe même à la coupe du monde. mais moom c'était un candidat de la FIFA tamit dinañ ci bàyyi xel. non c'est vrai. c'est de la FIFA. am c'est vrai parce que. lâché après par bii rek la am CAN coupe d'Afrique. Mm-hmm. gars yi commencé éliminatoire yi. une CAN à 16. gars ñu ne léegi la. affaire yooyu ça ça n'existe nulle part Cameroun pare après nangu retiré ko ci eh, Cameroun. te changé wu exécutif bi nga xam ni tënn réunion bi ginnaaw bi nga xam ni Mosepe mooy président confédération africaine de football bi premier vice président ah, président bi mooy Augustin Senghor deuxième vice président bi mooy Ahmed Yahya euh, troisième vice président bi mooy Souleymane Waberi quatrième vice président bi mooy Seydou Mbombo Njoya bu Cameroun bu Cameroun cinquième vice président bi mooy Kani Zat Ibrahim. secrétaire général à la CAF mooy Véron Mosengo Omba Omba. c'est un Suisse d'origine congolaise. gis nga kon léegi euh, presque comme lu ñu wax tous les candidats qui ont été proposés par la fédération internationale FIFA ñoom la ñu dugal ci bureau. pratiquement sauf. sauf. peut-être Moustapha Adji. Euh, bu nekk Libéria. parce que il était contre euh, le président de Malick là. non wala c'est pas ton président Antonio Suarez. <laughs> membre élu comité exécutif CAF zone nord la muy Wadi Jari. zone ouest à Moustapha Raji. zone centrale Seydou Mbomba Njoya. zone ouest B. Djibrila Amidou. di Pelé zone. centre est Souleymane Waberi. mooy euh, le le zone sud Elvis Raja Chetty bu Seychelles. Seychelles ak mais. Clean Letchivie bu Botswana. Botswana kooku moo nekkoon euh, il faisait partie de de l' équipe de campagne du candidat Motsepe. depuis mhm. depuis le départ il a été récompensé. il a pris ils ont pris tous les postes. Mhm. Euh, euh, football féminin bi ñu ngi ko dénk. Isha Jansen Kanizat Ibrahim. Ah. bu bu Comore. bu Comore moo nekkoon présidente. comité normalisation bu Comore bi bu Comore bu Comore waaw. d' accord membre élu conseil FIFA yi zone nord bi. Fouzi Lejkala bu Maroc. Ah. ak Annie. Abou Rida bu mhm, Égypte mhm, mhm. zone francophone bi Maturin de Châtellus la bu Bénin ak Moutou Mamadou Touré bu bu Mali zone anglophone PINIC bu Nigéria la groupe féminin bi Isha bu Sierra Leone président confédération bi mooy premier vice-président fédération internationale de football FIFA donc ñoom ñoom lépp defar nañ ko yëpp yëpp ñu voté par acclamation. <laughs> Ah, le tunisien moom il parce que ah. c'était le seul candidat. Mhm. mais am na ah, am na étudier. bien sûr ci poste yi. comme tous les postes. mais dama ne de manière générale. on a accepté ça sans. mais ça c'est pas c'est pas une nouveauté quand dans les instances hmm. internationales sans coup férir donc daal fi mu nekk daal on est sous la coupole de la fédération <laughs> internationale. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gaam Piro Valda. Val d'Afrique ak Pirovalda ñoo leen di may seen émission rétro sport. merci beaucoup jërëjëf euh, waa service commercial des sports yéen ci wàllu euh, plateau bi. Mm-hmm. Ah, Sadio waxtaan nañ lu jëm nag ci li nga xam moo jëm ci wàllu élection confédération africaine de football yi mais tamit Sénégal am na beneen élection. waaw ah. maanaam août prochain. Euh, Augustin Senghor dafay remettre en jeu son mandat. Mm-hmm. ci ci ci mandat boobu am na sax ñu jot a wax ne candidat lañ. Mm-hmm. ku ci mel ni Malick Touré jot na fësal bosom. bu leer. am na ñoo xam te fësalaguñ fësalaguñ seen boss alors est-ce que des choses Augustin war na mën a présenter waat candidature ah légalement il peut se présenter mais Augustin dafa waxoon mm-hmm. euh, le troisième dernier mandat. Mm-hmm. Mm-hmm. je pense Mame Adama Ndour même l'a rappelé dans. l' qu'il avait fait avec Record donc euh, Augustin je pense c' est compatible d' premier vice président. de la fédération ah. aucune loi ne l' interdit ça. Ah mais Augustin bon donne sa parole je pense que c' est de. il sera même chargé de. de je pense que c' est donne sa parole. il tient ses engagements a si Malick CAN 2022 bi on risque de ne pas libérer certains joueurs professionnels. Uh-huh. loolu tamit xam nga ça pose problème pourtant y a des personnes ku mel ni Talla Fall communication. Euh, GF GF ou Cheikh Sidiba et autres ñoom nee kooku aubaine la pour joueurs locaux yi pour ñu mun leen sélectionner en équipe nationale A yow Salif quel est ton point de vue là-dessus euh, deux matchs. Mhm. si benn match mën nga jël locaux yi mais pour dem phase finale kan nga def ko équipe euh, lépp local. non pas phase finale. ci ci les derniers eh, eh, oui en fait de toute façon. ci mhm. les deux dernières journées des Sénégal non mhm. euh, je suis parfaitement d' accord maa doon waxtaan je faisais un entretien hier soir avec euh, Amdi Faye. par rapport à ça moom il a cité d' autres joueurs pas des joueurs locaux mais oui oui man je suis convaincu que y' a deux ou trois joueurs. par exemple je prends comme ça l'exemple de Madické Kane du Jaraaf. du Jaraaf. s'il n'était pas au Sénégal je suis convaincu que si euh, on est 54 équipes nationales africaines A euh, au moins au moins sur les 30 il pourrait être titulaire il s'appelle Madické Kane c'est le mm-hmm. milieu de terrain du Jaraaf du Jaraaf mm -hmm. euh, Pape Ousmane Sakho mm-hmm. bu nekk Teungueth FC dafa am particularité lu ñu uti actuellement percussion mhm. technique mhm. vitesse mhm. affaire yooyu kooku mun nañ ko may chance om jouer équipe nationale A maintenant est-ce que l'entraîneur va faire aujourd'hui effectivement y a un gros souci de libération des joueurs des joueurs expatriés est-ce qu'il faut ah, euh, les appeler mais c'est pas la première fois que ça existait il y avait des temps yow yaay forcer sa bopp da ngay forcer sax rappelons-nous que euh, dem si yàlla bokkande dem na sax ba uti carton rouge pour mu ñëw football ak Sénégal bon parce même dans le monde c'est une équipe qui a de la valeur des joueurs yi am na ñoo xam ne dañ fay bëgg a ñëw jouer c'est des euh, qui jouent dans les championnats professionnels leen mu nekk parce que dafay augmenter seen valeur marchande mais moi pense que oui il a certains locaux par rapport aux matchs muy def en coupe de coupe de la CAF ak euh, Ligue des champions mais suñu defee benn liste 23 wala 26 jot nañu woo leen quand le gardien par exemple di Jaraaf. Pape Seydou. mais day fekk entraîneur bi mais du staff la du benn entraîneur xanaa donc su loolu moom seetaanul hmm. et puis ku leen du seetaan Aliou da doon ay match c'est vrai c'est pas beaucoup de match waaw mais day day ñëw ay match il n'est pas aussi fréquent comme toi et moi mais hmm. ñaata journaliste ñooy seetaan match équipe nationale euh, locale ñaata journaliste ñooy seetaan championnat dañu waxante dëgg rek hmm, avant covid bi danañ seetaan mais avant covid bi on se connaît de euh, doyen on se connaît que ñu ngi seetaan championnat local journaliste yu koy seetaan mën nañu ko compter sur les bouts de. waaw bëri ñu de. non sans Covid bi Malick daal non non non non même sans Covid bi <laughs> doyen on se connaît de. non toi aussi ñun xam nga non. bi. avant Covid bi daan nañu bi moo ko wàññi. am am na lu mu bi am na lu si wàññi parce euh, bon c'est sûr parce que gars yi no no dañuy wàññi sax. euh, le nombre de journalistes. Mm-hmm. mais je je vous dis. xam euh, naa li nga wax. mais man dañ daan daje man ak yow stade. Mm-hmm. <laughs> mais mais depuis un an. ñu bëri dañuy wax rek championnat Sénégal dañ ko seetaan. Mm-hmm. ils connaissent même pas ils peuvent pas tous des des joueurs euh, des journalistes sénégalais. am na ay journalistes yu ay cinq ay cinq oui oui y a des per. <laughs> mu ñoom jaax ak Modou donc donc donc donc am am na ñuy seetaan. d'accord léegi kon bon ñu ngi jëm ci maanaam. professionnel ñu mun nañ leen bàyyi ñu jël ay jours locaux orchestra passe parce que tamit une équipe nationale doit avoir des jours locaux en son sein. en fait euh, c'est l'équipe la plus euh, pas forcément les meilleurs joueurs mais l'équipe la plus complète c'est ça. Mm-hmm. la plus homogène. la ça ça veut dire que parfois da ngay gis par exemple si on prend l' de la Côte d'Ivoire de 2015. Mhm. Mhm. pas la meilleure équipe. de Côte de ces ça si on prend dans la décennie même l' de la Zambie de 2012. y avait des locaux mais y avait plus d' expatriés mais seen expatriés yi fee lañ nekkoon. Afrique du Sud Afrique du Sud lañ nekkoon Sud et TP. c' donc c' un peu ça mais de toute façon. je pense que il y a certains de nos joueurs qui approchent parce que soo jëlee 23 joueurs mais d'habitude 5 joueurs duñu football la 18 18 18 ñooy euh, football même gardien de am ne dañuy jouer sax seen équipe loolu dañ dañ koy xalaataat dañ koy xalaataat pour mm. pour man dama ne woon sax si coupe du monde 2018 euh, bi. Mm. xam nga soo sélectionné benn joueur FIFA daf koy fay. club bi. par exemple. Xaadim euh, Ndiaye Xaadim Ndiaye euh, lu mu indi lu mu andil Orea. Orea bu soo ko jox. <laughs> man dama ne woon est-ce que moment boobu duñ doon waxtaan parce que génération foot moo doon dem. Mhm. jaraaf yi mhm. paas mënoon nañ jël benn jour jaraaf parce que boo amee 23 joueurs. ñëpp duñu joué. ñëpp duñu joué mënoon jaraaf mënoon na am 100 millions wala 150 millions génération foot am loolu. loolu mënoon na la joué pour faire ça. bon je sais pas <laughs> si euh, affaire yooyu mais donc il faut réfléchir parce que euh, comme Aliou l'a dit un mhm. euh, bi yëpp war a développer en même temps. Mhm. pas seulement l'équipe nationale à ainsi de suite donc là ça il faut avoir des il faut faire avoir des mesures donc loolu dañ ci des kan soo si xam naa nag gars yi na mën nañu antenne bi loolu Pape dañ ko war a teel ubbi <laughs> que depuis janvier ak couvre ba léegi nag nekk xam naa gëmuñ mhm, a appelé uh-huh. fu ma nga toog bi tamit journée ñoom tamit seen huitième journée uh-huh. ci wàllu jigéen ñi euh, ISEC sport ak CMT 75 46 pour USEJ euh, Saint-Louis Basket Club ak Bopp 69 38 pour Saint-Louis Basket Club Debalok ak Mbour Basket Club 58 22 euh, pour Debalok euh, GIA ak Université Gaston Berger 69 50 pour la Gendarme Jaraaf ak UCAD 73 cinq pour le Jaraaf ASFO ak Saltigué 66 deux pour ASFO ci wàllu góor ñi tamit jeunes yi seen huitième journée. Mermoz Louga Basket Club moo ko gagné 84 à 43 Sibac Douane moo ko gagné 77 à 58 euh, Iseg Sport dafa gagné Asfa 56 à 53 Jeanne d'Arc Iso gagné ko 62 à 56 Université Gaston Berger gagné Saltigué 53 à 52 Union sportive de Rail Duc moo ko gagné 60 euh, à Ville de Dakar gagné ASC Thiès 77 63 Saint-Louis Basket Club gagné Bopp 75 62 loolu mooy résultat yi nga xam ni am na ci wàllu basket bi. Euh, donc soo mën a ubbi bi si 88 la 628 98 98 suñu ngeen wootee suñu invité moom mooy Salif jàll bu agence de presse euh, sénégalaise waxtaan moom ci poñ yu bëri participation af équipe africaine yi waaye tamit. Euh, Euh, Ligue 1 bi Ligue bi euh, euh, yow laa bëgg laaj sax ci ci ci ci wàllu Gorée le temps jël auditeur bu bi est-ce que Gorée mos na traversé situation situation yu mel nii. mais ci lañ dëkk yow tamit ñaata yoon lañ dem ah. bëgg indi rek. Ah. <laughs> tàmm nañu loolu yow. Ah. mais mais lu tax amul stabilité boobu. lu tax moo jaaxal ñëpp peut-être c'est manque de personne comme le dit le président même Augustin. il n'y a personne xale yi duñu gis kenn ils sont seuls. il y a trois ou quatre personnes qui sont là-bas le président de qui tout gagné euh, une euh, une vieille dame comme la Jeanne d'Arc. Mhm. c'est une équipe boo xam ni dafa ta yàgg di am ay ay ay dirigeants ay supporters yoo xam ni boo amee problème ñu réglé ko loolu yàgg na am mais quand on ne personne quand les gosses ne se sentent pas euh, épaulés quand quand ils sont seuls quand ils vont jouer kenn du leen gunge du ñu ànd ak kenn dañuy wéet te sport bëggul wéet mooy li nga wax sànq rek le public est important mais les supporters le sont aussi. donc Gorée loolu la ñu manqué. à l'époque il tenait des réunions convoquées ñëpp ñëw. loolu lépp dañu dañu coupé woon. allo bi allo waaw. waaw te je crois que. salaamaaleykum maaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. allo. ñu ngi waaw ñu ngi la ñuy déglu waaw. yow la ñu ngi lay déglu waaw. waaw mais maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen wax ni que saa leen a dégg. ñu ngi sant bu baax. Alaaji Malick maa lay jaalee suñu yaay jooju gën a àddina yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin mais Ndiaye. Ndiaye. Mhm. maa ngi la dégg. Ndiaye gars yi namm nañ leen de. <laughs> xam déggoo mën la xam nañ ki ñu njëkk woo ma nga toog. namm nañ leen trop trop trop trop. may sargal nag le grand Augustin. Mhm. waaw di ko ñaanal lii ñu ko dénk nii mu oyof ci ci mu oyof ci moom. Mhm. amiin. waaw parce que biñ ko jox moo gën sax président bi parce que président bi amul jot. politicien mhm. bi ngi doon xam ne am na liggéey nag il mhm. a beaucoup travaillé <laughs> parce que dañ ko responsabilisé dëgg la ñuy taxaw naan ko noo nii ak naa xam nga dëkk bi ñoom bugu di ku am taam kolam am taam ginnaaw la ñuy wut bu mhm. gis ne maa ngi koy encouragé li muy lii ñu ko jox ni mu oyof ci moom mu liggéey liggéey sama gars yi aussi euh, le président maa ngi koy ñaanal moom itamit parce que actuellement mi ngi liggéey liggéey bo am solo ak ñoom Cheikh Diop parce que gars yi ñu ngi liggéey ah bien sûr ma wax ne directeur général de la douane jàpp ci. même tamit sportif la xam na xam na. da mhm. da jàppale gars yi gars yi liggéey dem ci kanam. c'est ça. Afrique bi jaraaf tam ak tëngëj moom ñoom mën nañu ko joxante ji. Mhm. ils ont un bon entraîneur. Mhm. tout le la tey ils n'ont qu'à travailler. c'est ça waaw man lan la leen doon mais man namm naa leen. yàlla na Sénégal am jàmm ak lépp lu ko. amiin amiin merci beaucoup. merci beaucoup 88 la 628 65 98 98 ngeen oote 628 98 98 ngeen di oote di fàttali nag Sidaat moom mooy euh, su ma juumul le troisième mbala quatrième antenne boo dem parce que. Pape Thiaw dem na saison Pape Thiaw dem na. Alassane Diallo dafa démissionné. Malick Daf dafa dafa dafa dafa dafa dafa bàyyi donc Sidaat c'est le quatrième entraîneur boo xam ci Ligue 1 bi. bàyyi mais pour diverses ñoom. ils y croient mm, ils y croient. ils y croient resté en première euh, donc comme li ñu ñaan mu nekk déclic. Mhm. boo xam ne na leen permettre ñu revenir. parce que tamit c'est une équipe très populaire. Mhm. boo xam ne tamit mu maintenir en Ligue 1 c'est une bonne chose. xam nga tamit ñoom la wax souvent sax ñoom Salif su fekkee xam naa sax mun nga bañ a partager point de vue boobu Demba Diop. fermeture dafa impacté trop. bu ñaari tali bi c'est mm-hmm. xam nañ ne dafa impacté bu baax. ñaari tali waaye dafa impacté bu baax ñaari tali ak yeneen équipe yi. mais mm-hmm. surtout ñaari tali parce que c'est sa base affective. Mm-hmm. moo fay taxaw mais aussi ñaari tali est en train excellent travail. parce que euh, on peut dire que dañu raté woon fondamentaux yi. c'est-à-dire. am infrastructure seen bopp mooy seen terrain bu ñu nekk di defar mooy petite catégorie mhm. léegi ñu ngi koy defar mhm. léegi la ñuy soog a équipe la ñu amoon mhm. mais léegi la ñuy nekk di construire club consul club nag moo gën a métti am. est dafa gaaw dafa gaaw a màgg màgg bi dafa gaaw trop mu jógee en bu neex. en deux bu ak tamit. 1-0 lañ gagné àllale retour ñu dóor leen 3 après prolongation. es ce que nekkul dafa teel a màgg mooy mooy. c'est clair c'est clair c'est c'est c'est qui a grandi très très très vite parce que nawetaan la jógee. ainsi de mhm. bon mais oui et puis mais tam dëgg la. Euh, le fait que seen base affectée ñu perte hmm. base affective bi way ça impacte mais il que vous avez deux millions euh, ay trois millions par di boîte la diade ici par par par ça ça pression la pression ah. sur les joueurs parce que loolu moo leen forcé ci kon bi nga dëkk gars bon gars yi booy ñu lay seetaan parce que nawetaan bi moo continué hmm. donc donc y avait trop de pression positive ou négative mais y avait de la pression sur les joueurs hmm. contrairement am amuñu loolu a perdu euh, reste toujours première reste toujours première est-ce que Jeanne d'Arc war na a dellusiwaat ci sur le. c'est le souhait de tout le monde. parce que la non la entre le souhait et la réalité. ça ça va être compliqué mais ils vont travailler parce qu'il y a des gens qui sont là-bas maintenant bon euh, le football moderne répond à certains critères. Mhm. il y a pas seulement le supporterisme supporter là non non non léegi faut être un supporter actionnaire. Mhm. Euh, ñëw ñëw andi sa xam-xam bi ah, ak sa bi. c'est pas seulement être là applaudir non on a dépassé ce cadre là mhm. faut aller vraiment joxe sa bopp si kii bi soo su doon équipe bi daal ñor na la da ngay participer réellement mais xam nga genre de pratiquement dafa éclaté wu boo xoolee ay ñaataal yëpp base affective am la bokkoon sacré cœur ci ci waaw mu ngi revenir en Mali mu ngi revenir ñu ngi d'abord ñu ngi national 1 ba pare mhm. encore ñu ils sont premiers mhm. à trois points du deuxième il y a beaucoup d'espoir comme li Salif wax am na réorganisation les dirigeants sont revenus les saison bi yëpp ñu ngi soog a am nga xam ni kon ils sont sur le bon chemin on mhm. souhaite que ça continue rek mais la Jeanne d'Arc est en train de faire le travail nécessaire pour revenir en première euh, en en en et en Ligue 1. xam nga daaw amante saison position ñu ngi position moo tax sax ak ñoom mhm. changement donc ñu ngi mhm. ci logique saison daaw ba léegi ñu on peut dire on peut parler ainsi. Non, bien ah, sûr. Sans remuer le couteau dans la plaie, ah, quand ouais. même, il y a ce la GIA représente, la GIA se retrouve uh-huh. dans cette situation-là, ça fait mal. Très mal. Parce que beaucoup les boire, sauf au Sénégal, il y avait un temps, jusqu'à quelques années, football le club GIA la GIA la bon, parce que, eh, imagine, rappelez-vous bien, en 2000 quand on revenait à la CAN. Uh mhm. -huh. C'est un peu grâce à la gendarme. Oui, c'est de la gendarme qui a fait la finale de la mhm. Coupe de la CAF. Mhm. Contre le club sportif. C'est nous qui avons vu que la Coupe d'Afrique occidentale française, la gendarme l'a gagnée deux fois. C'est ça. C'est une très très très grande équipe. Bah, 2000, année 2000 euh, avec les papes Nyokhor Fall. Tafsir Salif David Camara. David Camara arrière gauche. arrière gauche waaw oui Cheikh Sarr. Mhm. Cheikh Sarr après les c'est les Nassir et autres qui justement donc euh, vraiment à ce niveau là. te Aba Koné. c'est des c'est le Malien. le Malien ak ak ak le Burkinabé. Nassir Yamayou qui était dans le staff de l'équipe nationale du Burkina. qui aujourd'hui rentre euh, chez Ousmane Ousmane comme un autre Sénégalais peut y entrer. Comme Ousmane Doy, son ah, des, des, des, des frères. Des frères, ouais. Ah. C'est la gendarme. C'est grâce à la gendarme. Donc mm. la, la gendarme nous a permis, même si elle, euh, Omar Sek, Omar Sek bon fait la participation du Sénégal pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mm -hmm. L'État du Sénégal a refusé de, de qu'il a. La fédération avait, il avait pris son propre argent. Yalla ko yalla yërem pour yalla fay ko. Vraiment c'est voilà des types de dirigeants. Jusqu'à présent le football sénégalais a on a besoin. Man suma déggé histoire j'ai damay am la chair merde pour j'ai mal j'ai mal j'ai vécu ce moment là mm-hmm. c'est mes débuts en journalisme je venais d'avoir mon diplôme euh, au CESTI ainsi de suite c'est mes débuts en j'ai vécu ces moments de gloire du football de club au Sénégal le président Seck moi je dama koy ñaanal rek ñaanal ko c'est loolu mm-hmm. mais mais gis nañ tamit euh, euh, Pape Jeanne ak ak Jaraaf bi nga xam ne ak Gorée y a les seen anciens joueurs GA pratiquement à part les dirigeants on ne voit pas les rogers même si au début ils étaient. pourtant ils étaient. Mhm. on les a chassés. <laughs> nekkoon nañ fa Moussa Ndaw nga foon. Mhm. roger roger nga foon Koto Koto nga foon. mais euh, mooy li ma expliqué rek xuloo bu amee rek yàqu-yàqu am. Ah, yàqu-yàqu am ndax ay tendance ak fii la àndal kii la far. Mhm. donc euh, lëfa Umar Baye bi ñu ñëw ñu àndaloon ak ñoom ñëpp dañ leen dégagé. Nakoto faisait partie du staff de Omar Seck ci club bi la bokkoon mhm. mais ñi nga xam ne ñoo leen fa jëlee bi ñëw ñoom ñëpp la ñu dégagé mhm. donc ça c'est un mal ki sera difficile à, à, à soigner puisque Jeanne d'Arc dañ ko tas complètement mhm. mais ils ont les mêmes dirigeants joueurs yi ngay wax ñi ngi fi je crois que bu ñu yéegee bi yoon ba egsi Ligue 1 je crois que ñooñu ngay wax ñëpp ils vont revenir parce que la Jeanne d'Arc c'est une grande famille xam nga Jaraaf a réussi Cheikh Seck président. Amadou Diop Boy Banda dans le staff. mais mais mais. xam nga tendance yi ma lay wax rek xam nga temps yi fi ñeneen nekkoon dirigeant. Mhm. boo ko fàttalikoo bu ñu fi tudd sax ay tour ay ñoom Cheikh Seck yooyu nga wax il s'était un peu retiré. ba sax dañuy former club Médina. Mhm. mais quand les choses sont revenues à la normale. ci la ñuy ñëw. puisque dafa am ñoo xam ne ci club bu ñu ci bu ñu ci bokkee am na loo xam ne bu ñu leen ko defee rek soo moytul dañuy gis seen bopp dañuy dellu ginnaaw. mais ils peuvent revenir c'est ce qui est arrivé ñoom ñëpp ils sont revenus ça peut arriver à la Jeanne d'Arc mën nañ ñëwaat ça dépend juste yore direction bi parce que sport moom Malick lu ñu yaatal la boo ko xatee rek da ngay sonn mhm. ndax quand les gens reviennent ñu ci mel ne ay ñoom Ndofène ñu ci mel ne ay ñoom Boy Bandi ah ay ñu ci mel ne ñoom Siré Dia ñi nga xam ne ils ont joué dans l'équipe loolu c'est un avantage extraordinaire loo xam ne kenn mënu ko fay donc comme tu dis équipe yëpp noonu la ñu war loolu amoon na fa mais amatu fa boo demee doo fekk benn ancien joueur lu tax loolu. ah mais mooy ci ci téye bi la rek ak ñi téye ndax nit ñi Malick ba leen woowul duñ ñëw. ah loo bokk da nga xaar ñu oo la ci. ah bien sûr boo ñëwee la ko la woo. <laughs> mais Gorée ku remplacé Zidane c'est un de Gorée. Olivier Kabou. waaw. un ancien joueur de Gorée. xam ah, ah. ah. nga dem nañu biir Augustin am na ma grand yow ci nga yow waruma laa ci nga bokk mën na ko damay ñëw si ak ak quel titre <laughs> booy naan ma yow grand dool yow ban responsabilité nga am ba ñu wax ak ñun il faut ñu responsabiliser la. donc c'est c'est à Augustin euh, au bureau d'appeler les anciens ñëw ñu jàppale leen ñoom loolu ñu jàmbat temps yëpp ñu may woo téléphone naan moom euh, Augustin dafa war a woote ñu def réunion supporters yi di nangam nangam <laughs> mais loolu c'est c'est la direction qui qui gère ça mais ku ci bokkul doo ko mën def moom si boppam xam ne ñi mu war a woo ak ñu nga xam ne bu waxtaanee ak ñoom ils reviennent parce que équipe mbooloo moo koy yore mais équipe boo xam ne kenn nekku fa ça sent le vide autour kooku xale yi bu ñu bañ a ñu gañe ñu bañ gañe lañ yemale départ de bu nekk la déclic ñoom hmm, en fait euh, euh, euh, le championnat on a joué que la dixième journée aussi il reste trois journées mais sept uh-huh. sept sept points la am Gorée sept points la am le premier am dix-neuf le premier am dix-sept il y a pas beaucoup génn ci zone ngay wax xam nga boo ci tollee xalaatu xalaatu boo defee kii suffit de faire une série trois victoires après nga yéeg yéeg yéeg moom loolu moo mais Sénégal. nga gis benn équipe boo xam ne mu mu kii mu def trois victoires de suite. c'est difficile non c'est extrêmement compliqué. c'est rare c'est extrêmement donc 88 la soosee 88 628 98 98 ngeen di beneen point bi Pape mooy lamb ji. le 4 avril prochain ci la door lamb ji ak Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2. yow yow yow grand da ngay sànni lamb. la ma ko damay déglu wala seetaan télé ak ak Covid bi Gaston Sène avait plus risque que par A ou par B day tëgg mm, d' accord mm-hmm. dee mm-hmm. <laughs> a koy tëgg ñetti nit ngay àndal. waaw <laughs> parce que y avait am na yoo xam dañu am. duñ mun a connecté problème de. am ah, beaucoup de problème c'était pas pas bien maîtrisé. c'était pas bien peut-être diaspora bi. Mm-hmm. mais fii sur le plan local. Mm-hmm. am na ñu bari ñoo xam ne dañuy jënd. mais duñu mën a seetaan la bëri na bëri na si bëri na si man dem naa ko parce que je pense que l' avenir de la lutte va passer par ça. bien sûr parce que les sports de MMA affaire yooyu. loolu moo fa loolu waaw loolu la c' est bien organisé. oui oui mais bon dañuy jaay événement bi avant commencement. c' est ça c' est ça mais la lutte a réussi quand même ça. sur parmi tous les sports au Sénégal sur le plan du marketing de la vente des affiches c' est la lutte qui a fait le plus gros mais mais y a une régression léegi y a une régression. oui oui bien sûr bon c' est lié à la crise à leur comportement. parce que da ngay ah, dem ah, gars yi ah. di signé ay combat di dóorante si hôtel yi di toj hôtel yi affaire yooyu na mu ngi maintenant tout le monde a eu peur. a ah, ah, peur xam nga xam nga ba diggante. guy gi ak Ama Ama sa tribune bañ koy daaneel. Mhm. bu Radisson nag. Euh, Balla Gaye ak euh, Yékini. Mhm. yow bi ngay wax. waaw euh, fële la woon kii 2STV bi. bi nekk booru port ba. Mhm. mais kii Radisson la. un grand hôtel. tout le monde a eu peur. non toj ko dañ ko toj complètement ah. kooku ci la sponsor yi génne. Ah, exactement il n'est pas question que ñu dugg ci lii. kenn kenn du lii. ñoo ko yàqal seen bopp de ñoom seen bopp. ñoom ñoo dàq sponsor yi. Mm-hmm. léegi pour le faire revenir c'est pas facile. non non ce serait pas facile sauf que c'est un spectacle qui peut vraiment se vendre. non quand même c'est adorable cinq heures de télé. c'est intéressant. cinq heures de télé euh, avec beaucoup d'ambiance. waaw mais tamit mais tamit invité nañu fi président CNG. loolu lamb rek la am. kenn xamul bu ëllëg parce que kenn xamul bu <laughs> la am cest léegi loolu jeex na de ñu ñuy direct da ngay trois heures ba vingt une heures je pense que s'ils peuvent ils peuvent s'adapter non léegi dañ mën nañ wu dañ ne huit heures euh, quarante cinq la kaa leen sëgg mais huit heures quarante cinq nañ sëgg par force si les tapes si tu sur les portefeuilles waaw combat yi xam nga promoteur bi 10 moo bëri. promoteur tey mu ne ne man damay 10 combat parce que ci am xaalis c'est-à-dire c'est lui c'est lui mooy maître mooy nekk le maître d'œuvre. de l'organisation. te combat bu ci nekk daf mën nañ ko bëre entre 25 30 ba 40 minutes. xam nga dafa métti dafa métti. donc c'est jamais mu day teel a pare te du xam nga. des fois day day day day. day traîner à longueur. day traîner à longueur donc donc loolu tamit c' est des choses yoo xam ne war nañu ko war nañu ko ajuster. non bien sûr parce que c' est président CNG toog na fii di. Euh, euh, Bira Sène bëgg-bëggam lépp moom mooy heure bi heure bi defaraat ko. parce que il faut que man sooy xam tam mais bien sûr parce que lamb dañuy gis direct ñu commencé. coup d'envoi final coupe du monde. Mm-hmm. déjà xam à deux ou trois ans. tu sais euh, exactement. donc il faut ça mais le le la télévision se prépare

que tamit horaire yi tamit dafa am importance. Mhm. làmb mënoon ko tëgg toog ba 9 du signer grand combat. xam nga mhm. na temps yoo xam ne grand combat yi ay 21h lañ koy tëgg. wallaahi wallaahi loolu Malick c'est triste. triste si ñoo xam ne ña nga fa dem depuis 16h. toog fa ba 21h. war mhm. fa jógee 22h 22h30. kooku sax amul sécurité. non non c'est non. Ah, y di ñibbi sax dara wóorul ndax foofu day fekk mu guddi. te service d'ordre bi dañuy sonn ñoom dañuy ñibbi parce que ne peuvent pas journée suba ba ngoon foofu. Ah, donc je crois que war a. timing bi timing bi c'est important. maa ngi lay teg suñu làmb wax ne pratiquement ubbi gi ñu ubbi làmb war nañu làmb war na wane bopp li ñu wax ci. déglu bi ah, que mun nañ def li nga xam ne moom moo jëm nag. du dëgg tëgg làmb ji sans ak ah, ak tamit respect mesure barrière. bien sûr est loolu c'est faisable. mais on est obligé de sans respecter les mesures barrières bàyyi noonu nit ñi ñu def lu leen neex amuñu benn respect ci mesures sanitaires yi kooku Malick tëj sax ko gën. Mhm. il n'est pas question ñoom nee nañu mun nañ ko respecter ñoom ñoo ko wax. ils l'ont crié fort fu nekk mun nañ ko respecter mën nañ ko respecter léegi on va les mettre à l'œuvre bu ñu ko respecté wul dañu tëjaat làmb ji parce que il n'est pas question que pandémie bi di yokku par rapport au public qui va venir il faut respecter toutes les mesures barrières xam naa li nga wax c'est un milieu particulier ah, un public ah, particulier mais nag loolu dama ni la dañu nekk ci situation sanitaire mhm. xëy na le même public qui devait entrer dootul entréti mhm. bu ñu dee vingt mille places par exemple dañ naan dix mille places la ñuy jaay. d'abord pas foofu am problème dugg ku dul dugg rek ah, jaay billet. waaw xanaa loolu. bu ñu atteindre du bu ñu jaayee yi bu tribune bi feesee dañuy arrêté bi. Non, mais il faut, il faut, il, il faut, de grands responsables. Ah, quand même. Mm, mm, mm. Ils sont obligés, Malik, de faire ça. Sinon, euh... sinon, on va refermer. Puisque d'un coup, on peut am débordement, ou le am. Euh, euh ah, mais tout le monde doit s'adapter. Je crois. je crois moom moo jëm ci wàllu Salif Kan Kate bi nga xam ne daf Maroc da ko organisé finalement ça a été annulé. Mhm. agité woon nañu fi Sénégal. mais mais kooku kay mal normalement kaaf. mais euh, ça vraiment. Mhm. Mhm. foofu lañ mun a wane seen bopp. le nouveau comité exécutif la. voilà je pense parce que euh, normalement comité d'urgence bu jëlee benn décision. comité exécutif bi moo koy. valider mbala invalider ko. invalider mais bon dégguma. dégguma franchement j'ai vu le communiqué mais waxuñu dara certainement dañu valider la décision qui a été prise mm. mais c'est une décision anormale très très anormale parce que Afrique dañu soxla compétition amul benn dëkk boo xam ne si Zambie waxoon na ne moom pare na Zambie dafa qualifié moom pare na mhm. non dañu war a uti solution parce que ñun Afrique dañu soxla compétition toutes les catégories jeunes exactement donc il faut sinon vraiment... sacrifier non c'est ça il faut ñun Sénégal sax dañu soxla parce que ñun temps yee soo xoolee bu baax suñu équipe A bi mooy ñoom Crépin affaire yooyu la ñu jógee comme petite catégorie cadet junior ñu monté ba dem foofu. Mm. loolu on change pas une méthode qui gagne on change pas une équipe qui gagne donc on doit vraiment Augustin est le premier vice-président de la CAF. Mm. dañ koy sañ loolu on va le pousser à vraiment à à le comité d'urgence à reconsidérer sa position par rapport à ça pour que ñu organiser non seulement on a une belle génération. Mm-hmm. mais nous on a besoin kii ainsi de suite euh, se balayer aux Jeux Olympiques. Mhm. donc on a besoin de. cette bi la leen éliminé. ñu am compétition quoi pour xam nga Salif man la bëggoon ñu taxaw seetlu sax moom moo jëm ci yaa ngi wax ci compétition ak tamit ñi nga xam ne la présent est assez faible dafa tuuti boo xoolee génération crépin bi yëpp yaa ngi crépin. mais c'est normal Malick. mais mais rappelle-toi ñu nga bokkaloon sixième daare. Mhm. ñan ñoo am bac ñan ñoo am brevet ñan ñoo am bac c'est l'élite mm-hmm. l'équipe A c'est l'élite. Mm-hmm. c'est forcément. non non au-delà de l'aspect élite. mais ah. aussi bien dans les demal en France. Mm-hmm. Euh, les les champions du monde l'équipe de champion du monde u avec la génération de Pogba. il y a deux ou trois jours ñoo ñoo équipe nationale A. c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que se passe c'est l'élite. c'est extrêmement l'élite rappelle-toi ñu nga am amaloo en trente sixième wala mm-hmm. brevet mm-hmm. fan lañ ñu nekk nañu enseignant wala bàyyi nañu ainsi de suite demuñu bac ainsi de suite c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe depuis des années ñu fati indi indi cest pour Malick il faut changer faut renouveler non pas c'est-à-dire non pour Malick c'est une génération qui a été sacrifiée. chaque chaque à mon avis. parce que son avis. sa ah, da au moment où les deux militaires sont restés en rade. mais que, que, mais Crépin pas un d'accord je donne. match. il a joué il a joué il a joué euh, en excentré. Bruges aujourd'hui qu'à Monaco. l'exemple de Sidi Sarr. même si ça il a eu moom quelque ah, kenn problème yoo xam ne éclore li mu waroon defee. extra sportif mais extra sport pratiquement jouer les grands au niveau de notre mais c'est tout le temps les mêmes personnes avec des résultats confort boo xam ne hmm. dema dema dem ba foog ne équipe bi yaa ko moom man côté boobu laay waxee au moment nous avons des jeunes yoo xam ne ils peuvent apporter quelque chose. pour toi la concurrence n'est pas saine. justement ça dit on doit changer complètement. non pas on changer mais renforcer. renforcer mais c'est ça je pense qu'il en train de faire à dose peut-être c'est lent pour toi. trop lent. <laughs> xamul ndax Salick parce que boo xoolee tey par exemple. Uh-huh. ñi ngay wax ci ngay 2022 mais ñoom ils seront trentaine il faut mettre les. gosses que Amady il faut commencer à merci. Amara Traoré aussi m'a dit la même chose il y a ou 8 mois. Uh-huh. parce que kan dut ay trentenaire rek. ñoo non non boo fa demee sax da ngay sonn da ngay sonn da ngay sonn. moo ñu doon exactement. mais Pape daf ma ko wax avant kan bi. fan yàlla na ko yàlla yërëm ndeysaan. ni ma mënuma yaa ngi wax rek mais dina bëgg nga déglu ma man ko lan la mënuma sa équipe bi presque ay trentenaire la ñoom Omar Gueye Sène ak ay ñoom Bokandé ay Roger Mendik ay Cheikh Seck limal ma lu mat sept wala huit personnes limal Pape Dieng titulaire dans l'équipe ah pour gagner une CAN avec ces trentenaires là ce sera compliqué de parce que équipe yi dañu rajeunir ay Côte d'Ivoire yëpp dañu rajeunir mais j'ai compris ça au cours de la compétition bi nee ba ci biir dama xam ne âge bi moo ñu éliminé man man man saa côté boobu xool am nañ des jours yoo xam ne qui peut apporter quelque chose de plus et qui sont jeunes jeunes

c'était la même chose avec les Papis Demba Cissé et autres toog fa pendant des années gagné wu dara toog ay des cadres yoo xam ça pose problème équipe li ko war ubbi football xale moo koy def xale moom moo koy def. mais tu as pas changé deux tiers de ton équipe. pas de deux tiers mais nga changé am na ñoo xam tey bu demoon du indi dara ci équipe bi.

Giroud en 2018 il n'a marqué comme ouais, ça peut arriver. Ouais, mais il a il n'a pas marqué mais il a fait marquer. il a fait marquer te dafa am cas <laughs> de mbay mbay kay def. mbay mbay ñaata mu dal. dem na dem na Arabie Saoudite léegi. non non xam xam nga Salif man foofu man foofu laay. jour même bu dugalul bi il il sert l'équipe. il sert l'équipe. Oh, c'est-à-dire même su fekkee ne sax ñu joue dans le club. mais yow xam nga Afrique bu baax. Hmm. Afrique c'est d'autres réalités d'autres ah, mentalités. c'est-à-dire toj France sax nga toj Afrique. benn yaa ngi rappelé. Euh, la ZAN en 2012 qui a été championne d'Afrique. Mm-hmm. avec Afrique du Sud ak ak ak TP exception bu lañ def mm-hmm. ñoo xam ne au moins mm-hmm. ils ont l'habitude de jouer sur africains xam nañ comment ça se passe. Côte donc man toj Europe. ak c'est différent c'est différent. c'est vrai boo xoolee par exemple ay ñoom Pape Matar yi je donne un exemple comme ça. ak yenn jours yoo xam ne fii lañ jógee yaa ngi fàttali léegi début émission bi kenn am na ñoo xam ne Ligue 2 ils se sont fii fii la fii lañ formé wu. waaw bien sûr bien sûr mais faale wuñ leen sax. ils connaissent la la non on les appelle hein on les ah, appelle on les appelle. on a oui oui euh, on a appelé Moussa Fanam. Euh, on a appelé Eliman non bi ñu nekkee fii la la Malick wax avant qu'il ne ah, parte. ah avant qu'il ne parte ah ça c'est un problème ça c'est vrai je suis d'accord avec vous. mais bon. à la à la décharge du coach ñaata match la ñuy am fii Sénégal parce que loolu tamit il faut que ñu wax si. mais non grand il faut que ñu wax si. Salif le talent Salif oui le talent mais tu as besoin de jouer. Salif quand tu as le talent. oui. tu peux faire jouer le gars. tu peux le préparer personnellement. am na fi ay joueurs yoo xam ne bi ñu ñëw équipe nationale kenn xamul leen. Ah. parce que talent moom. donc nga koy mûrir da nga koy defar. waaw da nga koy mais mais équipe nationale dafa soxla rythme grand. tu es d'accord avec moi. ah bien sûr ah, mais oui équipe nationale yi. ci âge moins de 23 ans olympique yeeg local mais duñ leen sax toppatoo. c'est ça le problème ñun dañu bëgg talaa yi ñu am. Nous avons ah, un suivi, un bon suivi. Ah, non, ah, non. Je pense qu'il y a voilà, un suivi. Voilà, voilà. Mais maintenant, bon, est-ce qu'on leur donne carrément leur chance Ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais il y a un suivi. Ah, y a un suivi. Edouard Meni doit remplace parce que lui, il fait ses preuves constamment. Ouais. ah Edouard Mendy moom du xalaatu indi koo xam ne ay. non parce que ak Alfred Gomis. ak Alfred justement. Alfred mais am na ci yoo xam ne. mais tu peux prendre comme troisième gardien. Euh, le gardien du Jaraaf. du Jaraaf oui. mais bien sûr non mais bien sûr pour le faire grandir. ou bien nga jël benn jeune gardien. pour le faire grandir moom sax boo xoolee ne pratiquement il est excellent ci bal arrêté. Hmm. pénalité exactement waaw moom moom moom. waaw ah. même si keroog dafa. mais éliminé ko noonu ci benn match bu mu yàq rek. Euh, mhm. du moom sax man ban du moom du moom rek. bal bi défense bi la ñu traversé la toute la défense. toute la défense. ak ak ak ñu wax jour nañu. ak faute bi ak faute bi yëpp yëpp moom peut être a dernier rempart le dernier rempart un gardien quand même c'est ça pour que loolu na la dugg nga nga enrayé. <laughs> toujours. grand gardien nga woon non. <laughs> donc mbokk auditeurs yi fi mu nekk nag émission bi jeex na ñu leen di sant di gërëm di leen gërëm nag waane yaakaaroon nañ ne tey jii ñu bëri nañu woote waane sunu fidèle auditeur muy Bro moo woote ñu nag am métti tamit ci disparition Thione Seck di ko jàlle ñëpp ndax démb tey ñu ngi ciy wax mm-hmm. un homme qui aimait bien le football. Mhm. un grand supporter du Jaraaf aussi ndeysaan. yal na ko Jaraaf man ah, Jaraaf man ñu koy jaale tamit Waly son fils. Mhm. ndeysaan di ko jaale Sénégal yëpp. Sénégal di ko mhm. jaale famille sportive yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp parce que tamit c'était un amoureux du sport. dañ daan entre musiciens ñoom seen biir souvent. donc il faisait partie des équipes qui jouaient. entre artistes. donc ñu ngi koy jàlle bu baax di ko jàlle Wally di ko jàlle toute la famille di ko jàlle tamit sportif yëpp ak tout le monde musical surtout euh, ñu nga xam ne ñëpp moom ñoo bokk génération ñoom ñëpp ñu leen koy jàlle kon bokk auditeurs yi waxtaan bi daaloon tey jii fii lañ koy yemale sunu audi sunu invité Salif Diallo la Salif ñu bàyyi la rapidement nga tàggu auditeur si bon wax nga lépp di remercier di leen si invitation bi c'est avec un plaisir que la euh, dama fi ñëw avec et dit bon comme tu l'as dit on s'incline sur la mémoire de Thione Seck qui est un véritable un vrai Sénégalais un grand Sénégalais on a perdu un grand Sénégalais un grand compatriote qui a mouillé le maillot pour le pays fu mu nekk foofu gënal ko fi amiin amiin ñu def noonu dinañ tegaat bi incha allah ëllëg après le journal du soir ci Sud seen rajo na ku